commission yi commission juróom-ñett la dama dugg si commission domaniale juridique ak fiscale commission boobu man mii lañ ko jiitaloo man maa ko jiite woon mooy commission boo xam ne dafa yor mbooleem loo xam ne lu jëm la ci patrimoine daara yi ak loo xam ne jëm na ci mbooleem statut juridique yoo xam ne ñaari daara yi am nañ ko ñu ne foofu foofu lañ koy liggéeyee commission bu nekk dañ la defal ay TDR terme de référence lii ak lii lay seeni si yow lii ak lii lañ bëgg ñu suñ commission bokkoon na ci TDR sax ñu war a consulter des notaires ak ay juristes ndax mbir la moo xam ne mbir mu xaw a sensible la bi loolu amee fiche yi nga xam ne moom ngeen gis mu tasaw si internet bi man en tant que président de la commission dañ ne mënuñoo boole lenn te defuñ état des lieux ba pare ci laa créé trois fiches une fiche domaniale une fiche juridique ak une fiche fiscale ak beneen fiche quatre fiche la sax beneen fiche boo xam ne maa ngi ko tuddee identité bancaire ndax bala ngaa ne naam ne fa patrimoine moo la ñu see wax te xamuñ kenn ku nekk la nga yor lu mu doon ci ban la ne ak lu ci ne moo tax fiche bii domaniale bi mu amoon rubrique yi ñu ne zone maanaam fa barab ba nekk ban titre la bàyyi la délibération la nangam nangam nangam lu mu doon superficie bi naka naka la yaatoon nu mu toll bénéficiaire bi maanaam këyit boobu si ban tour la ne benn état la ne na fekk man ngaa am kay jënd kër mu nekk si tur mais na nga nekk phase mutation wala demande de bail la wala leneen ak leneen ak observation lii nag ñaari entité yëpp kenn ku nekk remplir nga ko ñu xam la nga am ci ban tur la ne ak li nga xam ne mooy li ci nekk ñu woote benn réunion physique à dakaar bi ñëpp remplir ba noppi ñu ne léegi réunion physique bi na kenn ku nekk indi lii nga bind indil ay kayit yoo xam ne mooy attesté li nga bind ñu def réunion bi Dakar ñun on a présenté suñu piste yëpp fu ñu ne bàyyi la bu nekk turu daal xudos ñu génn kayit bi ne fii bi bàyyi la turu daal xudos la ne lii nii lii nii la nii mais suñ parti lañ am mais beneen parti bi ba léegi présenté wuñu benn kayit beneen parti ba léegi présenté ñu benn kayit bind nañ waaye présenté ñu benn kayit bu assisté liñ bind nii la donte am na loo xam ne jaaxal nañu si ndax ñoom dañ duñu wut kayit te wax nañ ne am nañ baay boo xam ne tur israélien la ne loolu jaaxal na plus d'un ndax commission bi ñu ko con consulté ñëpp consi con ñu ko consulté constitué woon ñëpp ñii impôt domaine nañ ne ñii ay nangam lañ ne ñii xam nañ yoonu suuf te xel moom mënta jàpp nit ki am bàyyi boo xam ne dafa nekk si turu illustrateur te illustrateur wul mooy li jox wax sànq bala nga ne naam ne fa mais amul benn kayit boo xam ne indi nañ ko présenté ko pour assister lii am na. loolu it ñu xam ne nit kon lii ku def lii da nekk si aw yoon pour defar na kenn ku nekk indi si état de lieu ñu xam ne lii nga am si ban tur la ne istarxee li ñu am xam nañ lañ am si yan tur la ne xam nañ ko mais lu am kayit ak lu amul kayit loo tax TDR yi waxoon ne constitué ay notaire est-ce que nit dana jël lu amul kayit di ko tàbbal si loo xam ne lu am kayit di ko tàbbal si loo xam ne amul kayit gars yi xel jàpp na lool mais dafa war a am yoon moo tax TDR wax bu baax nañ conseil ay notaire loolu nag mooy il sarxe dafa war a am këyit nangu ko il sarxe daal ko am këyit nangu ko ñu créer organisation une assemblée générale de fusion boole lépp mu doon benn waaye laa mënuñu ko nangu ñu am këyit ñu jël lañ am def ko suñu këyit muy alal sëñ Tuubaa lii mooy li mën am suñu identité bancaire banque yi ñu am yëpp au nord histoire xëy daar Xuddoos la ne gis nañ ne de l'autre côté amul benn banque boo xam ne benn compte boo xam ne nekk nañ si tur histoire xëy amul kon y a problème yooyu nag dafa jaar ñu toog xool nuñ ko mën a régle ndax fii àddina la àddina da ngay nangu doxalin àddina way laa boo ko nangul dangay nekk si aw yoon rek wala nekk si lan ñal wi ñal wi mooy lan la ngay def lépp si ay tour lay ne te kenn saxu fi wëlbati ko te créé ay GIE créé ay société mais société nit a ko moom SAR société à responsabilité limitée SAR amu fa société unipersonnelle à responsabilité benn nit a ko moom donc dañ ko jox si tour nit bu ko faatoo du am jafe-jafe benn banque compte bancaire bu nekk si tur Hizbut Tarqiyyah amul fii compte yëpp si tur Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos la nekk benn oto boo xam ne Hizbut Tarqiyyah am na ko bu nekk si tur Hizbut Tarqiyyah amul oto yëpp si tur nit la ne mais loolu duñ ko waxtaan loolu duñ ko teg si aw yoon bisimilah. bisimilah barke Moussa ñu yeggale waaw kon ñu yeggale ñu yeggale ñu yeggale jaa leen jëf kon commission yi ni mu ko waxee rek commission benn beewu na kon ñu julli gee yeggale ñu julli gee ñu julli gee